Euh, asalaamaaleykum wa rahmatulah ñoo ngi leen nuyuwaat baax leen siyaara di leen ndokkeel baax ci bis bi euh, ñi ngi fii ci waañ bi ñu fas yéene jox kàddu gi suñu yaay tante Maram Dieng euh, mu wax ci kàddu waa waañ wi ci jigéen ñi wax ci tur Baaji Fatima mi nga xam ne mooy jëriñ ji ak moom ñoom ñaar ñi nga xam ne ñoo ko kon ñu fas yéene ko jox kàddu gi rek su ko defee mu wax ci tuuru mbooleem ñu nekk ci biir waañ bi ndax kenn ko ne xam na liggéey bi biir ak biti la. waaye nag fii mel na ne mooy fi gën a mooy fi gën a jafe waaye nag mooy fi nga xamante bi fi la njëriñ kon euh, ñu jox euh, tante Maram rek incha allahu taala. asubillahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ngi nuyu mbokku taalibe yëpp di siyaare ñëpp di sant ñëpp ñaan yàlla ñëpp am xéewal ci bis bi ñu yendu ñu ngi ci waañ wi ci bisub daara ji ñuy wax daaree sëñ Mor di ëttub sëñ Mbay Jaañ waajuru sëñ Amar Jaañ tubaarkàlla laaw la cat macha allah dara naqari wu dara jeexu fi lépp doy tubaarkàlla yàlla na yàgg yàlla na am wér yàlla na ànd ak xéewal ñaanal sunu sëriñ sëñ Mbay Jaañ ma ci àjjana yàlla na ko yàlla dolli leer yàlla na nu yàlla taas ci barkeem waaye ñu ngi ñaanal sëñ Amar Jaañ mi mu fi bàyyi. yàqul dara jaañ ak ay rakkam taxawaay bi rafet na jëf ji rafet na listaam ji dolleeku na xéewal yi lépp gën a yaatu ñi ngi taxaw fii nag ci waañ wi nga xamante ni bii fii la soxna yi nekk njiit li di soxna faatimoor Diagne ak yaay Maram Dieng Thiam ñuy sant jigéen ñi ñëpp te di leen gërëm di yëkkati suñu loxo yit di ko tàllal ci réew mi mépp kenn ku dégg suñu kàddu ku ne ñu ngi lay jox sunu xel ak sunu xol ak sunu xalaat ci daara ji ñu nekk muy daara islam tay ñu yendu bisub alxuraan bo xamanteni bi bii daara sëñ Mbay koy def te ñi nga xamanteni bi ño ngank daara ji muy sëriñ mor Jaañ ak ay rakam seigne afé Jaañ ak seigne sal ak ñi top ci seen ginaaw ñepp laaw la cat machallah yalla na nuy mag tay mag ñu amu ñam li ñuy liggéey yalla tax ñu def ak yonent bi ak sëriñ Touba ak bisu alxuraan liggéey yu ñu di fayu wer laaju ñu ay alarba laaju ñu ay saaku ceeb. néewuñu kenn la sa baay am na nu ko yëg ci daara ja ñu ngi liggéey bu baax a baax ku ñëw njaañ xam ne njaañ yokku na njaañ jëm na ca kanam lépp nag adanaan ji sëñ Mbaye Diagne ko taal ndax fu daara jollee tey rek mi ngi jollee ci de mi ngi sosoo ci daara sëñ Mbaye Diagne kon yal na ko yàlla fayal Diagne yal na ko yàlla dolli leer yal na yàgg yal na ànd ak wér ñu ngi tàllal suñu réew mi mépp daaray alxuraan joo xam ne fi nekk sa suñu kenn ci lenn waaye ñun soxna yii ci waañ wi dañu ngi tàllal sunu loxo di yëkkati suñu kàddu di bëgg lu waay man ci réew mi te muy lu baax te ànd ak diine lislaam nga jàppale ci daara yi sëñ moor Diagne ji ak daara ju ci yàlla boole ci kàttanu yàlla ak yonent bi ndax donga yi macha allah mënuñu koo lim ci suñu làmmiñ waaye takku nañu ànd nañoo mbooloo ànd nañu lu yaakaar daara ji lu ne yaa ngi ci daala ji lépp ci seen doole ak li ñu leen di jàppale yàlla na yàgg yàlla na sax ñu ngi ñaanal sunu njëw di ni daara muy sëriñ Mor Diagne moom xaadimul xadim ki nga xamante ni bu mooy njiitul jaalibatul mu ràq fii yàlla nag na ko fi yàlla yàggalal te yàggal fi ñëpp nañ fekkee ko tatal te jërëjëf jërëjëfati jërëjëfati Diagne. jërëjëf ñu ngi leen di dalalaat ak jàmm leen siyaara ci waañ yi ba tey su ko defee ñu jox kàddu gi sëñ Alaaji Gaye mi nga xamante bi mooy jëwriñu waañ yi waaye en même temps mooy jëwriñu kër sëñ bi yàlla def bi fi jógee it ak njabootam ñëpp a ngi ci biir daara ji mu bëri ku nekk jëwriñu kër sëñ bi su ko defee nag moo waral waañ wii ak mbooleem li aju lépp ci loxoom lañ ko rek mu seq ko suñu yaay yu tedd yi ak suñu rakk yi ak suñu soxna yi kon moom lañ fas a jox kàddu gi rek insha allahu taala seetaan rajim wa inni ya uhiisuha bika wa suriyata min seetaan rajimi rabbi ahuusu bika min hamasaati sayaatin wa ahuusu bika rabban yahduruun asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu bokki taalibe ñu ngi di nuyu ñëpp di siyaara ñëpp deen te deen baal di jël ci nuyoo bi ak siyaar bi sunu sëriñ sëriñ Amar Diagne di ko mu yàgg fi lool te ànd ak wér ba lii mu yéenee liggéeyal sëriñ Baye Diagne ci ëttam bi suñu borom may ko <coughs> ak wér ak fan bu gudd ba mu jëf ko jëf ko lu kawe njortam barke borom Touba waaw ni ko suñu affaire waxee wax dëgg yàlla ñu ci liggéey bi fii ci waañ wi yàlla dogal man lañ teg ci bopp bi ànd koog mboolem taalibe yi ak soppe yi ak xarit yi ak am di jàmm yi ñëpp ñëw nañ kenn man kenn desut liggéey bi wax yàlla liggéey nañ ko liggéey boo xam ne bu ci ayib la euh, bañ ko tàmbalee barki démb ba léegi ñu ngi ci liggéey bi kenn ku si nekk yaa ngi seet nu mu baaxe ak nu mu gën a rafete rek nga di ko doxal maanaam liggéey bi sax kenn ku si nekk lu ci waay dina la jëf kenn ku ne sa morom da nga yaakaar loola yow yaa ko war a jëf kon loolu ñu ngi sant bu baax di leen gërëm di leen ñaanal di ñaan tam yàgg koo def te lépp loo xam ne moo tax ñu di ko defee suñu borom may nu ndimbal ak tawféex bañ defe ko bañ am ci la ko suñu ci barke alquranul karim waaw bis bi nag day boo xam ne wax dëgg yàlla lu ci waay def su bopp ko defal ndax eh, bisub sëñ Mbaye Diagne te sëñ Mbaye Diagne kenn ku ci nekk ci Njaañ ak li wër Njaañ ameen koo njukkal dañuy wax ne sëñ Mbaye mënuñu ko fay dañ koy delloo njukkal rek ci li ñuy jëf ci këram gi dañ koy fas yéene delloo njukkal waaye mënuñu ko fay xanaa di ñaan suñu borom rek mu fayal ñu ko eh, te taas na ci di ñaanal itam xalifaam bii sëñ Baye Diagne ak ay rakam ak mboolem njaboot sëñ Baye Diagne yëpp ñu ak yàgg fi te ba léegi sëñ Baye Diagne bi mu leen bàyyee mu gën ñu gën ko taxaw ba am tel kaw njort ñuy sant ñëpp di gërëm ñëpp di <coughs> jégalu itam ci kàddu gi ndax dañoo mënewul wax waaw salaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatuh